madame la ministre nous ñu la avec une forte mobilisation des femmes faire refléter le président Macky Sall est ci xolu de département bu de faire refléter le département Tëngéej qui est le président Macky Sall madame la ministre le président Macky Sall na xelam dal fii ci Tëngéej élection yum fi masa samp ndëndëm moo koy gañe te élection yi ñu jublu daañu jël douze communes yépp jël le département et la ville teg ko ci loxoom ma ni madame la ministre du gudd parce que yow la ñuy déglu wax rek ni li ngay liggéey gis nañ ko yow ku nga ku am détermination nga mesurer li président Macky Sall aussi bien au sein du gouvernement mais aussi yaa remobiliser le parti yaa remobiliser les femmes c'est extrêmement important